fukki at ak léegi mu doon jiite office national de formation professionnelle Sanoussi Diakité moom génn janoog taskatu xibaar yi ngir rek daal di seetal deram gannaaw bu ko rapport Cour des comptes bi daal di joxoñee ci gestion bi mu amaloon ci boobule organisation. Sanoussi Diakité laa tudd mun ngeen dugg ci internet di xool sama jaar-jaar balaa may nekk ONFP nekk naa feneen géré naa musuñu maa teg. li nga xam ne jaaduwul wala demewul yoon. ñu toppee ko luubal ak mauvaise gestion ci foofu mu nekkoon moom mi lee di xamle ni dara jaralu ko mu daal di yàq réputation bi nga xamante ni nii àdduna bi yëpp daal nañ ko ko seedeel. waaw man damay nangu ñi nga xam ne sur le plan international ñu defal ma confiance ma nangu dugg ci ay njuujaat tilimal sama der non. loolu moom xel mënu ko nangu. yokk si tamit ne tey bu budget bi daal di eggee fi mu egg tey liggéeyam ak ñim àndaloon ci liggéey bi ñoo waral ba li ni mel daal di am. man li ma am déjà li ma yàlla baaxe sant ci yàlla bu baax a baax loolu du sama dund rek lay jëriñ mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw ëllëg ëllëg ay génération. moom mi leen nag di xam le ni pare na ngir rek daal di participer bu baax a baax si lépp luy jëmal Sénégal kanam loolu nag fas yéene ko amal ak lii di parti politique am bi.